salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu way mën a féete ci àdduna bi tey doomi Sénégal di ñu seetaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanam kanamu télévision Futur Média rawatina nag euh, ci sa émission wareef nuyu bu baax a baax sunu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal kenn la ak jàmm kenn la ak jàmm itam ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ñoo ngi sukk seen wet bu baax a baax a baax boole ci nag itam xalifa généraux yi ñoo ngi sukk seen wet bu baax a baax di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla waaye itam di sàkku ci ñoom ñaan bokkandoo ñaan yàlla mu defal ñu jàmm ci Sénégal defal ñu jàmm ci suñu ay kilifa diine defal ñu jàmm ci kilifa aada yi sàmmal ñu ñi nga xam ne itam ñoom la yàlla dogal ñu nekk ci xalifa yi macha allah ci xalifa gi képp kuy xalifa général rek macha allah nu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla dolli la jàmm dolli jàmm sa njaboot. ñu ngee ñaanal itam ñi nga xam ne wax dëgg yàlla saa bu ñuy defee mission bi rek dañu leen di xalaat mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi ñu ngi ci cliniques yi ñu ngi ci dispensaires yi yàlla na yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn macha allah ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ci am feebar yoo xam ne bu nu ko yëgalee nit ki bu santee njaay rek dafay daadee tiit waaye yàlla li muy dogal ci ñun daf koy dogal ci ñun eh, xam sa jàngoro moom du feebar ñàkk xam sa jàngoro loolu mooy feebar macha allah boo xamee sa jàngoro na la leer ne yàlla dana la booleek ña nga xam ne macha allah buñ la taxawoo rek mu wér yàlla na ko yàlla yàgg def incha allahu taala defal ñépp jàmm defal jàmm itam ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñàkk liberté am na axankay waaye liberté bu mag bi nit kee koy xañ boppam boo jëlee sa xel mi ub ko doo ci médité doo ci xalaat lu rafet doo ci def lenn yow mi xamal na ne yaa ngi yaa ngi prison kon ña nekk ca bërëb yooyu ñu ngi ñaan yàlla ñu gaaw retrouver seen jàmm ñu gaaw dem doxi li nga xam ne daal mooy seen ay activité yal na ko yàlla def ci barke sang bu tedd bi sunu xel dem ba tey ci ñi nga xam ne dañu baaxoo woon di ànd ak ñoom ni ko wala fay waxee ñu ngi ci njéggalu sunu borom waaye njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bés bu nekk ànd am tàqalikoo am yàllaa koy dogal waaye na rafet bu rafetee dafay am solo ñi nga xam ne ñoo ñu jiitoogum yal na yàlla defal leen jàmm ci bërëb yooyu ñu nekk ubbil leen buntu aljana yu yaatu yi sunu xel dafay dem saa su ne bu nu xëyee sunu ay kilifa sunu ay wayjur sunu ay wasila sunu ay soppe képp koo xam ne digaale woon nañu ak moom àdduna te tey mu dëddu sore nañu jege nañu yal na yàlla ubbil leen buntu aljana yu yaatu yooyu ñuy ñaan yàlla yàlla tas ñu ci barke sunu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al yàlla sàmm njaboot gi macha allah yàggal sunu taxawaay ci def lu rafet yal na yàlla euh, ubbil ko buntu aljana yu yaatu yooyu sunu góor gu baax googu macha allah yal na yàlla itam defal jàmm kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi lii mooy Sénégal bu nu xëyee dañuy ñaanalante jàmm dikk leen dal leen ak jàmm ci ndakaaru buntu Afrique te ku wax ndakaaru buntu Afrique xamal ne fu mu ne nii yaa ngi jàkkaarloog sa télévision Futur Média ñu koy wax TFM muy li nga xam ne rek mooy seetu seetu bi nag ku ne dana ci gis boppam rawatina ci seen émission wareef kon bokk jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi dañuy continuer li nga xam ne dañu ko sumboon muy waxtaanee divorce divorce nag di loo xam ne wax dëgg yàlla euh, li may wax wareef dafa baaxoo sax di tem-tem boo xam ne moo ko mag ndax divorce fii lañ ko fekk waaye na lépp rafet ni ko sooda bu so sekk di waxee sama seexu bopp boobu ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko neexu seen itam ak ngóone kon boog ndoy baan mhm. yow itam maa ngi lay wax bisimilah. jaajëf di kontaan naka ñoom baay Baddo. <coughs> ñoom ñëpp jëga fan ñu ngi ñu ngi nuyu waa Njaareem bu baax a baax. jaajëf jaajëf jaajëf dëgg yàlla di nuyu Njàmbur Njàmbur. Njàmbur Njàmbur yi ah di nuyu waa Touba Mbacke. voilà demoon vendredi samedi dimanche. ah bi passé xam nga rek xam nga damay dem def ay tournée ci région yi. Mhm. di xool la xew di ko jox nit ñi ci rajo bi. Euh, semaine bee passé dem nañu vendredi samedi dimanche. Mhm. fële ca. Louga. Mm-hmm. émission bi jàll na samedi passé. Mm-hmm. incha allah danañ xoolaat beneen région ñu dem fa. dëgg la bi ñu nuyoo kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp. Mm-hmm. dañ ciy jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. moom mbokku taalibe yeeg yëpp. di jaar waa Pire Sañu Xoor. comme ni ñu ko waxee rek sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé. sëriñ Maodo Cissé ak moom parent Jibi Diagne. ak monsieur le maire seriñ Mbuub ñu ngi koy jaar ak Baye Badou Dieng. ak sunu imam ba sëñ Moustapha Ka ñu ngi koy Serigne Mbaye mm-hmm. baax a baax ñëpp ñoo xam ne dañuy mm-hmm. bi rek <laughs> moom émission bi du ko raw moom ne moom tout le temps mi ngi mi ngi a dugg ah, euh, ma ne ko bu la ko seetaana rek te ah. te te te duñu ñaanal moom ne nit ku baax la sunu papa ju baax a baax la mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñi ngi ci tund woowu yëpp ngaa yi tiyaawa nag xam nga foofu mooy sama gox ak waa meewaan mhm. meewaan nag dafa am benn tali bu fa jóge jóge Pire dem meewaan jamono waaw jamonoy Senghor ba léegi tali ba tali bu xonq la wax dëgg yàlla yuuxu naa ko fu ne pour ñu defaral ñu ko mhm. waaye daal maa ngi ko yuuxuwaat pour tali boobu daal tali meewaan bi mhm. ñu dimbali si parce que meewaan ña fa dëkk amuñu mbubb mu weex du sol bu yëre bu weex ndax suñu fa jaaree tali ba xonkal ko xam nga loolu dafay doy waar ñuy ñaan rek ñuy jàppale ñu ci ci ci tali boobu waaw waree fa ngoog kon ni nga ko waxee rek thème bi ni mu la ko waxee woon démb rek mm-hmm. mën nañ koo tam un an waaw tey un an du jeex mën nañ du jeex parce que loolu actualité boo xam ne tout le temps day xew mu jiit suñu juddu dañ koy wax rek pour que mbir mi gën a wàññeeku ñi ko doon waaj génn ci ñi mu nekkoon seen xel génn ci ñaar ñu daje ba bëggante suñu sañoon duñ tàqalikoo am na ñoo xam ne loolu rek lañuy dox lu tàqale ay nit te loolu euh, loolu ba l'islam bëgg ko xam naa oustaz dina dina ci ñëw lu tàqale ay nit rek la ñuy wër encore euh, tas ni mu yombee Sénégal hmm. takk naa la góor ñi ni ñuy fasee dafa yomb torop jigéen gi day taxaw ni la may ma sama baat nga bañ te su góor ki su la nee may naa la sa baat mu jàpp te ku jigéen ki su la nee may may ma sama baat nga lànk téye baat bi yow ngay wër di takki jabar rek di dem moom du mën a am jëkkër parce que dan dañ ñi ngi xaar euh, may naa la sa baat jigéen su demee ba nob la ba nobatu la ne la may ma sama baat danga koy may baatam mu dem tey bu ñu doon taxaw ci conséquences yi nga xam ne divorce dana ko waral conséquences yi tam bare na de ndoy baan yeesu na bari parce que xale yi ñooy fay ay nen ñun tojul doom yi waaw seen yoon nekku ci papa yaay ba ñuy daje di bëggante judduwuñu fekkewuñu ko yëguñu ko la ngeen jote fekkewuñu ko yëguñu ko dëgg bu ñu tasee ñoom ñooy fay li naan tubaab naan payer les pots cassés. dëgg ñoom ñoo koy ñoom ñoo ko ñoo koy fay seen yoon nekku ci. dëgg la parent ngay gis papa yoo xam ni dañuy fase fase waale njaboot gi. Mm-hmm. te yoon njaboot gi yow yow mi seen baay. Mm-hmm. yaa leen war a yor yaa leen war a dundal yaa leen war a sarti seen responsabilité yoo leen nekk. Mm-hmm. am jigéen ñoo xam ne ñoom it dañuy dañuy tas ba pare jël doom yooyu yóbbu di ko xeexee yow yow xëyoo gontoo yow loo lekk yow ku jigéen ki soo xëyee loo lekk da tas nga ak sa jëkkër ngay xëccoo doom yi doom yi soo la xëccoog ñoom ba yóbbu leen loo leen di jox naka nga leen toppatooyee naka la ñuy jànge xale yi nekk ci yow sonn tumuranke nga jël xale yi ci boppam téye leen yow amoo foo leen dugal mënaloo leen dara mhm. te seen papa ngi fii ci dëkk bi mhm. man ñi fi ñëw di wax ak man rek dama naan la mën ngaa yor xale yi mhm. wala mënoo ko yor mu ne noom liggéeyu ma gannaaw liggéeyoo jëlal xale yi yóbbu ko seen kër papa bàyyi ko mais à quelle fin xanaa u ko xalaat dañuy géggante ku ci nekk da ngay jéem wut benn arme xale yi ñooy nekk yett wi ñuy xeexe wala mooy nekk fetal gi te loolu c'est dangereux xale yi seen yoon nekku ci boo yi bari ngi nii dugguñu école seen yaay ak seen papa dañoo divorcé mhm. yaay ji jël doom yi yóbbu mhm. wala papa ji jël doom yi yóbbu dëgg la ay doom doom dañ ko war a xool yóbbu ko fa muy fa intérêt ne dëgg la su fekkee papaam moo yor moyens yu mën a jàngale eh, xale yi jànge mm-hmm. papa moo yor xaalis bu xale yi mën a jànge mën a toppatoo xale yi mm-hmm. amul kii dañ koo war a jox xale yi dëgg na su fekkee yaay ji ci boppam mm-hmm. euh, dëkkuwaayam baax na euh, tegu na yoon parce que gars yi am na enquête bu ñuy def su fekkee dem nga tribunal dañ def benn enquête de moralité ci ndaw si ndaw si nu mu dëkkee ku mu dëkkal est-ce que fa mu dëkk baax na est-ce que fii xale yi am nañ fi place suñ fi nekkee est-ce que dinañ am wér-gu-yaram est-ce que dinañ njàng ñu jox xale yi seen yaay. très bien Ndoye Bane ñu ngi lay sant di la gërëm ni nga dikkee ci conséquences yi vraiment amal nañu solo lool ndax itam ñun gis nañu fekkee nañu ba tàyyi xëccoo xale yi Ndoye wax nii lu nekk la nag ci góor rawatina itam ci jigéen dama doon sax bëgg taxaw ci jigéen ndax ñun itam léegi saa yi duñu am les moyens ñu yor xale yi mais xëccoo ak ak diw euh, tantama nekk ca kër ga kon sama doom du fa dem mhm. papam dafa am beneen jabar sama doom du fa dem est-ce que bi ngay wax loolu yow mi nga xam ne yaay sunu mbokk jigéen sóoraale nga li nga xam ne mooy aveniru xale bi mhm. am na xale yoo xam ne dañu des seen loxo yaay ba mhm. faf li dikk ci ñoom dikk ci ñoom ñu nekk ay nit yoo xam ne wax dëgg yàlla buñ demee sax dañuy wax ne société bi daf leen a parce que li ñu dem dugal seen loxo bi loxo tam société bi sopp ko waccee ak sa yaay wala wàcceel ak ñaar ci kenn ci couple bi koo xam ne mënula la yor tout simplement. Hmm. ndax ñàkk ba ma mën a yor bi mën na nekk yaay mën na nekk papa waaye tribunal ñaare dafa mel ni bu dee àttee dafay bi ñu njëkk a jox def mooy jox jigéen ji doom yi. loolu nag su ma jotoon maître Pape Jean Sey ñu ngi koy nuyu bu baax a baax wala maître Fatima Sall dinañ ñu doon indil euh, leeral bu bu gën a bu gën a taxaw. Hmm. ñu daal leen fàttali ne. suñu numéro téléphone mooy 88 628 22 22 88 628 04 05 ndax yow mi nga xam ne tas nga ak sa jëkkër wala tas nga ak sa jabar war nga jël xale bi def ko élément wu foowekaay war nga jël xale bi def ko élément boo xam ne mooy sa xeexeekaay nga def ko jox ko def ko sa arme du dëgg du yoon du lu jaadu ndax xalaat nga avenir xale bi suba ci divorce la ñuy gisee ay xale yoo xam ne dootuñu am repère ci divorce la ñuy gisee ay xale yoo xam ne ñu ngi naviguer entre deux maisons xamuñu ndax dañuy toog seen wetu baay xamuñu ndax dañuy toog seen wetu ndey am na ñu problème ndax kooku nga xam ne amul équilibre mënta jàng-jàng bu wóor kooku nga xam ne amul équilibre ca njalbeenu àddunaam bu ëllëgee naka lay yoree doomam point d'interrogation kon boog yéen itam seen ay seede am na solo lool macha allah ñu leen di gërëm di leen sant ci woote bi nga xam ne yéen a ngi koy woote ñu ngi remercier itam ñi nga xam ne ñooy suñu ay sponsor savon saf moom la ñuy jëkk jaajëfal ne ko kontaan nañu ci ànd beeg moom jënd leen savon saf di ko fóotee seen ay yére xet gi parfumé na mën naa defar lu lu set ci ci kër gi macha allah karo yi dana baax itam ak leneen ak leneen. Mirko lait bu sell la macha allah naan ko am na solo euh, diwlin chef ayda yàqu ca dara ànd nag ak Gaza super mbokk mi mën ngaa dugg si kon bokk mën nga woote numéro bi ma nga ca baawu écran bi ndoy baan mu mel ni tey itam dañu fas yéene ànd ak oustaz Pape Malick Dieng ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax day kontaan lool su ma ko nee doomu ndeyu euh, Papa Anne Makumba ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax di ko laaj rek fan la yeewoo mbaa mi ngi ci jàmm oustaz bisimilah kontaan nañu lool macha allah. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki TFM téléspectateur u TFM yi ci biir réew mi ak yi ci biti réew yëpp tabaarakallaahu ñu ngi nuyu ñëpp di jël nuyu bi di ko toog ci si loxna euh, loxo soxna Eva tabaarakallaahu di nuyu ñëpp di nuyu alxaaji Ndoy Baan di nuyu téléspectateur u TFM yi nekk ci biir réew mi ak yi ci biti réew yëpp di leen ziyaara di amaat contentement bu baax a baax di teewaat fii ci plateau wareef nga xamante ne société bi la fi nekkal tabaarakallaahu damay wax ne problème yi nekk ci biir kër yi nekk ci penc mi yëpp fii lañ koy résoudre ñu ngi koy résoudre ci wàllu àdduna ci wàllu xalaat ak ci wàllu diine tabaarakallaahu loolu moom ma mën naa fi toogal téléspectateurs yi wax loolu ndax léeg-léeg damay toog ñun dañuy dem fu nekk di def ay cours damay toog fu nekk tabaarakallaahu ñuy seetaan lii di ci commentaire ba bërki démb rek moo ci mujj ci thème bi nga xamante ne bii ne moom ngeen entamé muy wàllu euh, tas wàllu divorce mm-hmm. tabaarakallaahu di ñaan rek lépp loo xamante ne bii ne wax nañ ko fi yàlla na daje ngërëmu yàlla amiin yaa rabbal aalamiin Eva fi may ubbee sama kàddu mooy yàlla dafa ñu wax ne mm-hmm. li mu daganal ba pare gën ko bañ mooy fase loolu yonent bi moo ñu ko nettali abgadul xalaali ila llaahi at-talaaq li yàlla daganal ba noppi gën ko bañ yàlla daganal na ko parce que xam na ni mënul ñàkk waaye bëgg ko mm-hmm. bu sañoon du am la koy jur nag lay sabab tas lépp yàlla exposé ñu ko tegal ñu ko dama lay nettali rek benn anecdote bu gàtt. 2012 2013 weeru kooru 2012. dafa am benn sama benn mbokk oustaz bu ñu naan alxaaji Idrissa Diop. ma koy nuyu de passage. ma mm-hmm. mm-hmm. koy ziar bu baax. tabaarakallaahu sa xarit Ndoye Ba. Ah, waaw kooku sama man maay fan sam. mu ngoog tase nañ sa sa zone de captage sa conférence. waaw nit ku baax la waaw. macha allah ñu mm-hmm. jox ko benn thème. divorce vu par l'islam. bi ñu ko ko joxee. daf ma woo. mercredi dem bi samedi la ci koor gi mercredi ñu ànd dem tribunal wala mardi xaw ma ban jour mooy jour boobu ñi nga xamante ne bi ne ci la ñuy liggéeyante cas yooyu ca tribunal bi mu ne ma nañ dem seetaan yi ñu ñëw seetaan ay cas yu bari ci divorce mhm. biñ ko seetaanee ba noppi ñu wàcc dugg benn bureau am ku ñu doon waxtaanal ci avocat yi ñu laaj ko mais lan mooy waral lii divorce bii nga xamante ne bi ne moo am ak seen cas yu bari yi <coughs> waaje nañu ñaari mbir ñaari mbir rek a ko waral li ngay coow li ngay dégg lépp. xaalis ak doom kase maanaam jëkkër yi ñu ngi dig xale jigéen ñi lu ñu mënul. Mhm. jigéen ñi sëyituñu dañuy seeti. Mhm. maanaam sëyiwuñu dañuy seeti lañuy ñuy seeti nag bu ñu ko gisee toog bu ñu ko gisul ñibbi looloo waral divorce yi yëpp. mu ne ma xaaj Malick bu ñu demee ci conférence bi amul yàlla nee na amul yonent bi nee na donte moom la ñuy lay taayee waxtaan wi waaye lii ngay fexe nu mu jugee ci société bi. pour wax la ne ni ñaari mbir yooyu rek moo waral coow li yëpp góor ñi ñu ngi dig xale yi jigéen ñi lu ñu amul mënuñu ko te yaakaar ñu ko it ndax lan gis nga loo bëgg jigéen ñi sëyuñu comme ni ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam santaane comme ni ko sittuna Aïcha ak sittuna Xadija daan defee déedéet dañuy sëyi parce que dafa am lu ñu bëgg di ko seeti te yaakaar nañ ko fa buñ ko fa gisul rek wala ñu ko noppee gis même bu fa nekkoon te yàlla ñëwee ki mbiram buñ ko noppee gis ñibbi. delloo nga ñu ci crise des valeurs. jërëjëf. dala kon lépp day dellu rek ci jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na dañ may yónni ma ñëw ci xeet wi ngir mottali jikko yu matul woon jikko ngi fi woon mais matul woon boo demee ci xadis bi nga xamante ne bi ni ci lay jàngalee diggante ñaari way dencante nee na ku jigéen ki seet indiwu ko fi seet lu indiwu ko fi seey si moo ko fi indi ku góor ki it na xam ne dafa dañoo kee dafa bàyyi pàppam bàyyi yaayam bàyyi ay mbokkam ñu teg ko ci loxoom xoolal jël nit ne ko am ñu may la wax ñu ñu dénk la wax ñu la nga teel ñu déedéet am ñu may la nit ki noppam ñu may la ko na nga am jikko yoo ko gardé. c'est fort. di ñëwit na am noblesse ak wàccu yuñ ko mën a téewee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu delloo ci quatre critères yi nga xamante ne bi ne moom la góor war a téewee soxna wala moom la war a xool ba gis ki muy denc denc ko problème du am. waaye ñun dañ fay bàyyi njàngaleem Seydina Muhammad topp suñu kii sallallahu alayhi wa sallam suñu nafsu loolu moo indi problème yëpp ni yonent bi tracé ne nañu dencee noonu soxna nañu xool critères yi quatre critères yi benn bu ci am ñu jël ko bu boobaa problème du am waaye boo fi bàyyee yëpp te xoolal critères yi dafa ne la takkal soxna ndax danga ko bëgg dëgg jamaa jamaaliha mhm. mooy ndax dafa rafet mhm. ku nekk ka nga bëgg moo rafet ci yow ku nekk ki nga bëgg koo ko rafet ci yow koo mu rafet mu rafet ci yow takk ko ndax askanam dafa baax diw doomu diw ak diw ak la doomu diw ak diw diw diw boobu kii moo ko jur ma takk ko ndax loolu takk ko ndax dafa doylu takk ko ndax dafa am diine yonent bi nee na bu boobaay yëpp bu critère yëpp dajee nag fas far bi zaati diine taribat ya daaka man nag su ma lay digal su ma lay digal jëlal borom diine boo ko defee sa kalpe waaye nag man damay seet ki ma gën a neex. Ah, damay xool jongo ñu baal ma ci kàddu gi. waaw dëgg la damay xool ki nga xamante ne bii ne borom askan bu rafet la. dëgg maanaam comme ni ko gars yi di waxee rek ci jiw bu baax la bokk. yax bu rëy yax bu rëy la bokk. Hmm. mais takkee kooku kon yax bu lay yax bu rëy laay sëyal. waaye man bu yax bi jikko jikko tuuti kan moo fi yor yax bu ndaw. xaw ma ko alors. maanaam lan ku ca judd foofu. <laughs> ah mais riis na ci <laughs> yow riis na ci yow. <laughs> pour pour man man tey jii man yax bi ma maa gën a rëy yax ci réew mi. Euh, naka du man damay nangu kenn gën maa rëy yax. Ah, mais yeex na. Ah. léegi kan moo fi yor yax bu ndaw. gisuma ko de. kon diine da caa gën a yonent bi wax na leen far bi daati diine xoolal borom diine boo ko defee rek taribat ya daaka sànniwoo sa xaalis. très bien oustaz. waaw sunu dikkoon divorce bi am na sunu boroom sopp ko. sopp ko nee na bu naree indi loraange. nanu nanu nanu ko def. waaye ba tey sip nag ko. sip na ko bëgg ko ah, ah. Euh, ñu gis ne. Euh, mhm. divorce am na. Mhm. jamono yi ñu nekk dafay jamono ju yëngu. Mhm. boo xam ne xale yi danoo fitu. dañuy juddu rek fitu euh, ñaare ci fitu dañuy gis xale bi nga xam ne dafa nekkoon ci biir kër am fa ndey am baay gis baay boo xam ne mooy dogal di def di dindi ñu xëy suba teel bàyyi ba newatul ak moom ñu xëy suba teel mu gis ne sama yaay mii indi na keneen ci biir kër gi kon léegi saay xale bi daal di développé nag mhm. ay jikko yoo xam ne ah. kenn xaaru ko woon naka lañu war a mën a defaree suñu diggante parce que dafay daal di nekk famille bu recomposée. effectivement su nu waxee ne ne ne lan mooy euh, conséquences yi. Mhm. man damay wax beneen famille bu bees bu taxaw xale. effectivement famille bi nga xam ne juddoo judduwaale woo ko. Mhm. nga naral màgg ci loolu. Mhm. gisatuloo baay bi bi nga nekkaloon wala ndey bi nga nekkaloon. loolu lan la mën a def ci xale. waaw xam nga Eva soxna Eva fi ñuy war a njëkk tàmbalee mooy yar xale bi. xale boo ko yaree na am 40 ans nga tàqali koog baayam beneen baay ñëw du yëngu. ci mm-hmm. du yëngu waaye boo ko yarul nga koy yefal élieu nga nekk éducateur nga nekk éleveur dellu dellu sin élieu nga nekk éducateur nga nekk éleveur léegi ay éleveur ñoo ëpp ay éducateur éleveur mooy nanga nga xaar bi na suur na tëdd fu baax na lekk na naan na seetaan télé point Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu daan na ko wax bu dee loolu kase boo demee ca baaru xar ba fekk ko fa boo demee ca mbaaru nag bi fekk ko fa waaye dafa am lu yàlla benn puce bu yàlla installé ci doomu aadama buy war di développé hmm. muy jikko xale dañ koy yar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne yar leen xale yi ci ñetti jikko jàngal leen alxuraan ak jàngal leen alxuraan su loo waxee jàngal alxuraan waxul yax bi nii ne alif ba taasa déedéet jàngal leen alxuraan mooy jàngal leen li ci biir la alxuraan def ci ñoom. la alxuraan war a def ci ñoom. jàngal leen ko mbóot ma mbóot ma. loolu boo leen ko jàngalee xale bi bu nee 40 ans nga tàqali koog baay ji yàlla dogal loolu. bu beneen baay ñëwee ci kër gi du yëngu. nangu lay njëkk def ndax. ñaari jàng alxuraan da nga nangu. wax koy ne yàlla mooy dogal mais nag oustaz. waaw foofu am na sew sew de. ay ca ñëwal ci sew sew bi moo tax tax ñu bàyyi la fi. léegi sa baay. Mm. góorlu ba samp kër. waaw Euh, dugal fa sa yaay. waaw nga juddoo fa. Mhm. màgg ba am 40 mhm. ans. Mhm. sa baay faatu. wala sa baay sa yaay tàggale génn kër gi. bàyyi fa sa yaay ak yow. waaw benn Babacar jóge Màkka rek bërki démb. gis maire bi waaw ak yu weexam gis ki gis ngir maire bi jekk na jongo ma na jëkkër ji bàyyil na ko kër. Mm. mu ñëw cokkaas ko. ndaw si bëgg ko mm-hmm. mu takk ko ñëw ci biir kër gi waa ji di sëy si di waaye ku Babacar a sëy si ñëw nekk ci biir kër gi bëgg faa dogal fayul courant mm-hmm. fayul ndox mm-hmm. fayul fa muy tëdd fayul dara mbaa du bu xëyee day ñëw nag ci biir kër gi bëgg a bëgg a commandé kër gi kër goo ah. xam ne tabaxoo ko xamoo bu newoon ni newoon. déggoo ma de ma ni mbaa bu xëyee. mbaa bu xëyee day sol ber mi daal. waaw su jógee sa xëyee sol ah. benn xuuxal jeegam di taxawal ci biir kër mm. gi. soo amee doom joo xam ne saa yi daa bari doole da lay escanté wala mu génne la kër dëgg la yu mel noonu donc ki nga xam ne day ñëw takk si mm. maire bi tamit na doon nit ku na yaru correct gën a yaru sax gone gi mu ngoog mais tamit boo yu bari soo gisee tey seen papa ak seen yaay tas mm. beneen paa ñëw di takk seen seen seen seen seen waajuru jigéen ñuy bañ ka ka seen i waajur jigéen di dugg duggul ci seen i waajuru jigéen ndax mbëggeel dafaa dugg ndax intérêt ku yarawul sax mën ta yare ndoy voilà ci sa te gis nga fa mu affaire fa muy mujj gars yi ñu ci bëgg lool ñi koy def sundee fukki witti ay triant lañu mhm. dañuy ñëw jaay kër gi détourné maire bi dóor koy course wala ñu dóor koy ay ay ay ay ay sungo fa ki reen mhm. ba ne xeloon maire bi maire bi abandonné ay doomam ndax sëy doom yoo xam ne paa bi ñëw ci biir kër ji juru leen yooyu dafa bari ah, kër yi bari yoo xam ne gars yi dañuy dem ba jaay kër gi mhm. paa bi oto bi mu fi bàyyi la ñuy a jaay mhm. jël photo ya ca saal bi wékki ko ne ko yow sa paa beeg photo bi yii xanaa yéreem yi xew yi mu soli bu ko defee soo génnee maire bi jël photo photo paa bi nga xam ne moo tabax kër gi dugal ci suuf lal bi njëkk na vexé doomam waa yooyu noonu mooy indi problèm waaw ndoy ñooñu duñu ay jëkkër ñooñu ñooñu moom duñu ay jëkkër. Ah, mbaa du yow foo mbaa du yow foo waxee modèle bu baax bi euh, kii bu baax bi ngay wax. waaw man jiw bu baax bi laay wax baax bi ngay wax. xam nga ki yaruwul mënul yar kenn. Ah, te ki def loolu yaruwul. ba pare wax nga ko léegi sa intérêt moo ci nekk xam nga ndaw si li ñuy war a njëkk a xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne xale bu jigéen jigéen ju nekk du xale jigéen ju nekk ñaari mbalaanu sutura la am lil mar'ati sitraani mhm. al qabru wa ziwaaj mhm. nee na jigéen daal bu nekkul ci buumu sëy na dem tëddi bàmmeel nga jigéen bu nekkul ci buumu sëy jigéen ju mat sëy te nekkul ci buumu sëy na dum tëdd bàmmeel moo gën ci moom lu tax parce que jigéen dafa lool mooy sangeem dafa war a nekk ci buumu sëy ah, jigéen ju toll ci sëy hmm. bàyyi nga ni société bu yàqu jigéen ñu nekkul ju toll ci sëy te nanguwul sëy moo ko yàq da cay bokk waaw mook mooy premier man ma ne da cay bokk rek waaw moom moo nag moo ci moo ci jiitu ñëpp mm-hmm. parce que problème mi ngi fi gis yëpp jigéen ji nanguwul sëy la sëy laa wax nag mm-hmm. jigéen juy taxawaalu jigéen ju toog biir këram te nanguwul sëy sax ci li yàq société bi la bokk donc kon jigéen bu yàlla dogalee sa pap sa jëkkër génn àdduna benn wala ngeen tàqalikoo am beneen góor guy ñëw góor gi tamit dafa war a indaale ci ko waaye warul nekk rek profitard koo xamante dafa bëgg a ñëw lekk alalu xale yi lekk ko taf tafee xale ndaw si dem yoonam déedéet looloo fi ëpp nag comme cas bi ñuy faral di nettali ci conférence ci waagu ñaay mhm. maire bi nga xamante ne bii ne dafa yàlla daf ko dénk alal mu nëbb boppam sollu <laughs> ñëw ci jàkka ji ne man dama bëgg imaam ku ma jël te yàlla tax imaam bi xool ko rek ak yére yu oyofam ne ko ah ku yàlla tax waaw toogal noonu ci jàkk jigéen ñi rek xaar bu gaa leen ko nit ñi ñëw timis mu leen ko ne leen am na jigéen bi nekk ci ci deg jàkkee jigéen ñi de na daal ñëw na fi daal nee na dafa bëgg ku ko jël te yàlla ku ko wékk buum bi bi am benn paa bu jug ci mbooloo mi ne ko jël te yàlla tax ñu ne kon nañ ko woo ñu woo ko ñu ne ko diw de nee na dina la jël te yàlla tax mu jël koo coordonné paa bi góor gi moom ku jigéen gi de jël coordonné góor gi dem këram woo ko téléphone ñu waxtaan ak ñoom waxtaan waxtaan ndakate commandel na ko juróom fukki mbasin grand boobu juróom fukki deux pièces juróom fukki mbaxana dix euh, parfum de classe ak dix millions ne ko ndijaay maa la nuyoo lii imam bi ne ko déet yow da nga ma wax nii nga mel mu ne ko déet <laughs> du ma dugg ci loolu de adduna ngi de du dugg ci ay wax ni ñu mel dama ne ku ma jël te yàlla tax xoolal puissance bi xale bu jigéen bi utiliser mënoon nga ma wax ni nii la demee. nii la demee. soo ma waxoon nii la demee man imam maa lay jël. maa lay jël <laughs> jërëjëf waa gis nga. soo soo waxee loolu man dama bëgg ku ma jël te yàlla tax te kii moo ma jël te yàlla tax. imam bi fu mu dëkk imam ah? bi fu mu dëkk imam bi fu mu dëkk. bu bu waaw na waagu Njaay waagu Njaay waagu Njaay. imam bi soo waxee waagu waagu Njaay day sànn. xamuñu imam bu dëkk waaye ca jàkkaay waagu Njaay la woon. santul Jaañ ja ah? déedéet santul Jaañ <laughs> santul Jaañ mu ngi sant ah. eh? santul Diagne de. Ah, mënu ko ah, ko sant. dégg naa Diagne la sant kooku kooku du Cheikh Tidiane Diagne. mukk a def loolu. dégg naa Diagne soo soo waxee rek waa gu ñaay sama xel. dem ci sunu yaay ju baax sàll ajaaraamata sàll jigéen ju baax macha allah yal na ko yàlla sàmmal njabootam macha allah ku mhm. ku baax daal bu nu waxee baax rek daal am na soxna yoo xam ne danoo baax da ngay nekk ñoom di leen fàttaliku nga nga sore leen tuuti di leen fàttali. macha allah gis nga yàlla defal ko jàmm. kon nag dañuy mm-hmm. dem directement. Mm-hmm. à la régie ndax Apulaay mi ngi ñuy xaar bu ko defee ñu dellu si waat. Mm-hmm. ci ci ci plateau bi incha allah. jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi waaye itam dañu am. nouvelle boo xam ne wax dëgg yàlla sunu soppe sunu xarit Jim Momar maane moom moo ñàkk baayam wax dëgg yàlla mm-hmm. ñu ngi koy màssalu bu baax a baax moom mm-hmm. Jim Momar maane di mag ci monsieur le maire Ali Mané mi nga xam ne mooy kor Adja Guèye macha allah sunu rakki bopp boobu ñu ngi ñaanal yàlla baay yàlla na ko yàlla yërëm Jim TFM yëpp macha allah ñu ngi lay présenté seen njaal Jim Momar Mané mi nga xam ne baayam dafa génn àdduna ñu ngi hmm. koy jaale bu baax a baax di jaale itam suñu frère sunu beau frère Ali Mané di ñaanal yàlla wax dëgg yàlla yàlla na yàlla yërëm bàyyi bu baax a baax a baax ñoo bokk sëriñ taalibe sëñ Bas la nit ku baax waaw nit ku baax la ñu koy jaale waajuram woowu dëgg ak ki nga borom kër yi Adja ku baax la moom tam mm-hmm, mm-hmm. ak Jim Momar Maale di sunu nit koo xam ne day jàpp ci liggéey bi lu bare bari mm-hmm. eh, ci accident yi ñi accidenté te assurance nanguwu leen a fay ak yooyu yëpp. Mhm. da ci ancien gendarme la. dëgg la mën na ñëw fii sax ñu koy. nit ku baax waaw ñu koy jàll waajuroo bu baax a baax a baax. Mhm. comme oustaz moom itam goro la xam nga mhm. Jim Momar Mané goro la ci ajaratu Aana Gueye Aana Gueye ah waaw waaw ah maanaam ki génn àdduna euh, goro ajaratu Aana Gueye la ndax moo jur euh, Ali Ali Mané macha Adja Anna Guèye naa kon bokk wax naa ko naa ah. yaay yi Adja Guèye. non kooku xaw ko de. tey xamoo ko <laughs> ma teg ci kon Papa Allé te noppiwaat. waaw Papa Allé daal xam naa ko waaye <laughs> keneen ki nga xaw ma yàlla ñu ngi leen di présenter sunu njaal. bu ah, baax a baax a ah, baax jërëjëf ndeysaan jërëjëf. Mm-hmm. gis nga Eva. naam Sénégal tas fii dafa yomb. Mm-hmm. dëgg la. te góor ñi dañ koo yombal. Mm-hmm. ñoom góor ñi taf taf ñu ni fase naa la. soo defee lii fase naa la. Mm-hmm. te ku ci taxaw ni sa jabar fase naa la. fase ba day daal di mel ne dañuy daa mel dañ koy daal di daganal daal. Mm-hmm. góor góor gu la góor ñi su leen neexee fase. dëgg la takk de leen a yomb. Mm-hmm. fase yomb leen. mais jigéen da jigéen topp ji jëkkëram ay ati ati at may ma sama baat nga lànk. mais loolu fu ko góor ñi teg. lu tax mu yomb ci góor ñi te yombul ci ku jigéen ki ah boobu tam jigéen bi dafa demul seeti nitu diine waaye yow parce que mënuloo dëkk ay at ah, di ñaan baat doy baan mhm. te may ñu la baat faaw da nga da nga war a seeti nitu diine ñu teg la ci yoon lu mu gën a gaaw problème jigéen ñi max lu mu lu mu doon mhm. wax naa la ko fii su tabaski jotee euh, su takk jotee mhm. gars yi sol seeni jasneer dem ca takk ga fees dell ci jumaa ja su ñuy dem yóbbu beñe yaag gindee yaag yëpp la fa nekk ci soos ñu lekk ko dem seen yoon mais su sëy bi ñu demoon amee problème koo ci woo mu bañ. te ndaw si dañ koo bàyyale ndajaayale ko le ko mu am magale ko defal ko lépp imaam ba ñëw takk ñépp a ñëw takk mais sëy bi su amee problème kenn du ci dem ndaw si da ciy wét te ku jigéen ki ku góor ki su demee ba bëggatul ndaw soo ñu ko may day taxaw ni ko may naa la sabaat woo ay mbokkam ñu may sëy ba daaj ñu daaj koy euh, nu mu tuddati sëñee ko mu dem mu dem yoonam ñu validé ko ndaw si taw ji su demee ba bëggatul jëkkër ji mm-hmm. bëggatu ko mm-hmm. may na ko xaalis mun ko bëgg ko mhm. mu dugal ko ci château bëgg ko mhm. mu yóbbu ko bitim réew defal ko lépp bëgguma la mhm. may ma sama baat waa ji nànk ni téye baat bi loolu jaaduwul loolu nag moo ni xos nag ci dëkk loolu jaaduwul jigéen ñu bari ñi ngi fii sëyetuñu ak seen borom kër yi nobatuñu seen borom kër yi man nobatoo ma mais nit ñi ma daal góor góor góor jafe na quoi man nobatoo ma waaw nee nga ma nobu ma la wax waxuma la sax nga wax ma ko mais soo koy soo koy réfléchir su lay soo koy xalaat sax wala nga koy doxe sax mhm. man la jëlal mais am na jigéen ñoo xam ñu ngi fii ci dëkk bi di ma déglu pendant des années ñu ngi topp seen borom kër yi may ma sama baat ñu bañ te su leen kër bëggoon na bu leen bëggoon a wàcc tey tey danaa leen may naa la sa baat ñëpp d'accord ci <laughs> jëkkër ja fase na ko mais jabar jaa ngi ñaan baat mhm. ñëpp day ndaw nga woo sa papa day bañ danaan la du ma fekke fu ñuy ñuy ñaane baat ah. yaay dama du ma fekke fu ñuy ñaane di jaay noonu ñëpp seetaan la jigéen ñi dañ leen di seetaan ci côté boobu mais nag maa bëggoon bëggatuma la ku am na ci droit. xam nga xam nga Ndoye Bane sa wax ji nga wax daf ñu yóbbu ci réflexion yu gën a sore ndax man dama jàpp ni sax moo waral jigéen di mujj dem tribunal. waaw loolu moo parce que bu dee bu nu woowee imam imam bu ñëwee ne la xaar leen. ngeen dem ci nitu diine ñu ne la xaar leen loolu waral en général ci sama gis-gis nit ñi di mujjee dem tribunal mais dina hmm. baax itam imaam yi di gën a dikk di gën a dikk di gën a dikk jot bi ñu tribunal euh, jox. jox jot bi ñu tribunal jox ba ah. topp ci benn at ñaari at ñetti at ñeenti at parfois dañuy bëgg loolu yëpp dañuy bëgg peut-être ñu juboo mhm. te boo déggee ñetti at ñeenti at yi sax dafay fekk mu am lu ñuy xaalis wala mu am ay intérêt yoo xam ne ñoo taxaw ñu war ko séddale parce que eh am na yenn xeetu sëy yoo xam ne tàqalikoo ci bàyyante ci jafewul du dëgg mais li gën daal bokk na ci mhm. ñi nga xam ne yoo ñoo ñoo yor suñu diine bi mhm. ñu gën a di di di may ndomp waxuma ne may nu nopp de parce que ñu am tam léegi saay dañuy doxalee nu mënu neexee mais ñu bañ cee tàyyi ndax loolu mooy différence bi ak da ngay dem mu am suivi lool. Mhm. imam ba du tàyyi duñ la wax wootee ya bare na. Mhm. duñu ne ne taxawal nañu procès bi tàyyi nañu. mais nitu diine yi macha allah xëy na daw loolu bañ loolu sib moo tax du nu wuy si ba yenn jigéen ñi di dem. xam nga loolu dañ ci sama gis-gis bu ndaw jox oustaz ah. dañ ci oustaz mhm. dañ ci dul dem oustaz bii day ñëw fekk takk gi. jàpp def ca lu ne. ca ca ca jumaa ja mhm. ñu dem ba quelque un an deux ans sëy ba am problème. Mhm. léegi ko ñu delluwaat ci yow. waaw ku jigéen ko muy ñëw ci yow. mais waaja ku góor ko du nangoo dem. wala ku góor ko dem ku jigéen ko du nangoo ñëw. couple bi du ñëw taxaw ci kanam. c'est soo nee naa la fii barki démb soo juddoo ñu woo imaam. Mhm. su lay soo soo xawee feebar ñu woo imaam mu bindal la xaas ak yu kenn xam bindal la ay yooyu ak Mhm. soo waree takk jabar ñu woo imaam. Mhm. su sëy su dëj amee ñu woo imaam. Mhm. su jullee jotee ñu woo imaam. maanaam lépp loo xam ne amuli koppar ak yooyu noonu dinañ woo neen soxla imaam. mais tey jii su demee ba nga xam ni tey jii sëy bi am na problème dëggantaan du ñu woo imaam de. kenn mooy dem woo imaam te su du wooyee soo wooyee jëkkër ji jabar ji day dem su wooyee jëkkër ji du dem wala jëkkër ji dem su wooyee jabar ji du dem maanaam dajaloo bañ dajaloo woon bañ mayee leen ko du nangoo dajaloo waatee noonu imaam bi jëm leen arrange mais nag su ku góor ki deewee hmm. bàyyi alal au lieu ñu dem ca imaam mu miraas normal su alal ji baree lool du ñu dem ci imam du ñu dem ci oustaz. tirmaa leen jëm waaye su fekkee da ngaa mel ni ndoy baan yow suñu lay mirage même pas 30 minutes mirage ba jeex. ku ne dem ci woo imam mhm. mais su fekkee mirage ba ay milliards la. ca mooy li may wax bu pat bu mbirum patrimoine taxawee. waaw te miraas bi bu ñu woowee imam du ñu wax tàqali ko boobu dafay dafay jafe. ñu ngi wax ne tey dañuy taxaw bu baax dañuy taxaw bu baax. Mhm. ci li nga xam ne mooy euh, li li li divorce di di indi. loolu lu ñu war a lu ñu war a taxaw la. tasaaroo la ca topp parce que njaboot gu tasaaroo bi. Euh, ku góor ki dem tànn keneen ku bees ku muy àndal ku jigéen ki itam dem tànn keneen ku bees ku muy àndal. Mhm. ñun ñëpp xam nañ ne du lu yomb yomb imam lu ngeen ci gën a mën a taxaw daal dana ma dana ma gënal c'est très difficile tey jii sëy ngaa jigéen am ak moom ñetti doom léegi nga yow mun jéew jigéen mënoo yor xale yi amoo les moyens pour téye xale yi beneen góor gis la takk la daan ne la mën naa laa yoraalaat yor ak yor yor say doom nga jël doom ya yóbbu sa kër jëkkër mhm. mais sa jëkkër soo soo amaatee yow ku jigéen soo amaatee doom ak sa beneen jëkkër bi c'est pas force mu bëgg xale yi de lu mu leen bëgg bëgg bëgg du leen yamale Mhm. du leen mën a yemale mhm. beneen bi mooy yow ku góor ki fase tas nga ak sa jabar bàyyi na la ak ñetti doom nga takk beneen jabar dugal ko ci biir kër gi ku jigéen ki yor ñetti doom ci biir kër gi c'est très rare nga gis jigéen ñi traité seen doomu jëkkër yi traitement bu normal ci biir kër su ko góor ki amul fulla lool. est jigéen sax ëpp ci muñ góor ndax jigéen bi gën te mën yar jàpp. moom moo la ko diina santaane sax. Ah. aaye bi boole aaye bi boole góor ak jigéen ci sëy ci alxuraan. ba'd a'uudu billaahi a shaytaani rajiim yàlla dafa ci alquran wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawadda wa yàlla nee na ñetti critère laa boolee papa ak yaay ñett ku ci nekk nag bu sàmmee boppam sàmm bosam sàmm bosam moromam rawlee ko ko xëy na tas du am xëy na waaye nit ku nekk ak jikkoom bi ci njëkk mooy jigéen danga war a gëm ne dañ la indil ku góor pour nga daral ko ni sittuna Xadija daleele woon Seydina Muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam lu fët fët mën a am mënul son nit mënul sonnee ci biro ba wala mu sonnee ci liggéeykaay ba ñëw ci kër gi fekk fi fitna mënul mhm. nekk mhm. kon li taskunu ilayha da danga koy dalal benn yàlla nee na seen diggante nag ma boole ci ñaari jikko bu njëkk bi ma wadda cofeel jigéen li mu bëgg mooy ku góor ki na yëg ne bëgg na ko rek jigéen na yëg ne jëkkëram bëgg na ko su ko yëgee yi des yëpp dootul problème am yàlla ne ma séddale leen yërmande yërmande bi bi ma joxee kenn ku nekk cinquante yee ñaar dama jëlaat vingt cinq ci góor dénk jigéen ndax mooy yar yàlla dafa yebal jibril alayhi salaam mu ñëw ci yonent bi ne ko waxal góor ñi boobu kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yëngu kër yonent bee yëngu sallallahu alayhi wa sallam pour wane la li li dal ci kër yëpp dal na këram soxna yi jig jig rek abandonné ñoom ñëpp croisé le bras ku mu ci jox dépense nga ne ko doy na ku mu jox te ay doomu Aboubacar ak doomu Omar ñoo fi nekk bu joxee Aïcha Aïcha ne ko du ma jël danga war a xam ne taax ba bokkul ak ville taax 5000 nga daan joxe ville boo fi ñëwee 15000 ngay joxe dépense yonent bi sa ngéem jaaxle na mu jóge ci Aïcha ñëw jox ab sa Absa Absa delloo ko ko doomu Omar la Aïcha doomu Aboubacar la sa doomu Omar la ku jox rek nga ne ko delloo ko ko yonent bi sa ngéem Omar dugg si néeg bi ne ko yonent bi lu xew mu ne ko dara mu ne ko lu xew mu ne ko dara. Aboubacar dugg si fekk yonent bi toog sa ngeen ñu lu xew lu ñu ne ko dara ñoom ñu yaa ngi toog yonent bee ngi toog sa ngeen mais du leen wax li xew ci këram ndax du tas këram moom mën na ko régler boppam ci gàttal Omar jékki-jékki ne ah yonent bi li ma bàyyi kër ga de xale bi sama ndaw si de jigéen ji de dama koo jox dépense bu bari mu ne ko nii loolu la ñu ma xëyee tey ñu lànkal ñu ne ko lu tax mu ne parce que nee na ñu dëkk ba 5000 Aboubacar rocci jaasim Omar rocci ñu leen déedéet seen i doom lañ mais sama soxna la seen yónneeku ci génn leen ci. ba pare tourné na yonent bi nag xolal ñoom nag nañ xam ne yow doo ñoom yow doo xam ne nañ xam ne doo benn góor nañu jël li nga leen di jox ñu toog sëy bu fekkente ne bii ne in kuntunna turidna al xayaata dunya wa zinataha bu dee àdduna lañu bëgg ak taar fa taalayna nañ ñëw ku umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan nañu ñëw ma defal leen li ñu bëgg ci àdduna nga fase leen fase bu rafet ñu dem ku nekk dellu sa kër bàyyi waaye nag bu fekkee ne yàlla la ñu bëgg ak mujj gu rafet ak ay doom yu baax nañu toog muñ te sëy te naan ci meew mi lekk ci tàndarma bi te muñ mm-hmm. ñoom ñëpp ku nekk xam ne yàlla bu intervenir wax ci jeex na ku nekk wax sa néeg toog mm-hmm. mu tourné nag ci yonent bi nekk ko waxal ak Aboubacar ak Omar ne nañu yar seen doom yu jigéen yi yaa ayyuha alladina amanu mm-hmm. qu anfusakum wa ahlikum naaran bi yàlla ñëwee wax loolu yar leen fegal leen seen bopp safara ak njaboot gi mm. mooy yar leen xale yi bay comportement yi bëggatuma ko gis si ku dul yonent bi sax waxatuma la ak yonent bi kon il faut que nga yar gone yi <coughs> cest à yar nag ki koy def mooy ki yaru alors est-ce que jeeg bi nga xam ne ngi ci biir kër gi ay doomu jëkkëram nekk ci biir kër gi mu sëy si te juru leen waaw est-ce kooku mën a mën na mën mën naa yar xale ya maanaam jéeg gi sëy si si biir kër gi te jurul xale yi jurul xale yi yar bàyyi la koy lislaam sant bàyyi mooy yar góor mooy yar jigéen nag dana ko jàppale ci yar bi ndax yërmande gi ëpp gi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye góor mooy yar qu anfusakum foofu papa la yàlla waxal waxul ak yaay mhm. yaay sax dafa war a bokk ci ñi ñuy yar ndax moo jiitu ci njaboot gi mhm. moo tax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay itam li ñuy xaar ci moom bare na lool question wu ndoy baan bi mhm. bu ma ko indee ci tey waaw euh, xam nga góor dana xëy joxe dépense waaw góor dana xëy ñu ne moom moom moom kër gi waaw waaye yaakaar bu mag bi nag mu ngi ci loxo yaay ci loxo yaay parce que moom mooy gouverner kër gi kon nee nga ndax jigéen ji mën na yoral góor bi doomam yi mhm. maanaam doom yi mu indi loolu la ñuy xaar ci moom moo tax souvent bu ñu bu ñu gisee dina ñuy dal ñuy tasek ay soxna yoo xam ne mhm. ñi leen def problème du kenn wala du du du ñenn ñu dul. ñi nga mhm. xam ne mhm. ñoom la jëkkër ji jur. effectivement. nga dem ba même doom boobu nga topp ko ba sa sëy bi nga sëyaat. Mhm. naqadi ci yow. du léeg-léeg mu nekk sëy bi nga sëyaat léeg-léeg mu nekk ki nga xam ne da ngay soog a taseeg moom. te bu fekkee ne sëy boo dem moo tax jigéen euh, waxtaan lu muy gën a di sore ñu koy gën a muñloo. mënoo jóge ci benn sëy. ñaari sëy ñetti sëy. xam nga li tax dafay metti ci ñun jigéen sànn suñu coono dafa bare mhm. sëy bi ngay jëkk sëy mhm. Mhm. di nga ca am sa ay njëkkeek sa ay goro am ca doom sa doomi bopp nga sëyat ci beneen sëy am ca njëkke yi bees am ca yeneen doom yu bees yoo xamanteen ak yeneen ak yeneen yu bees yu ñëwaat yàlla def nga sëyaat beneen sëy nag la nga dundoon fële dundaat ko fii nga koy dundaat ci beneen fànn kon nekk jigéen noppal amut il faut que il faut que ñu ñu muñ parce que léegi saa yi da ngay gis ci biir kër yi ay xale yoo xam ne dañu jug rek pour saboter sa ménage effectivement dafay am effectivement xale yoo xam ne dañu jug rek pour saboter sa ménage loolu benn cas nga gis itam beneen jigéen boo xam ne ñëw nga ànd ak bàyyi jàmbur te yow supporté loo ay doomam loolu c'est vrai mënul nekk kooku mënta am mënoo bëgg ginaar bañ nan ya mu dem ba ci ñun jigéen léeg-léeg da ngay gis booy xool doomu keneen ki mhm. sa sa kanam da xam nga lu réer ci nu ñu koy waxatee lu lu réer ci ci naka feeñ ci maanaam lu réer loolu nag rek mu feeñ ci sa kanam effectivement loolu lañ ko mais am na góor Olof Njaay dafay wax ne Olof Njaay dafay faral di wax ne lépp lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngorogo mais kenn dafa am na góor ñoo xam ne ba tey li may bëgg a wax sa maanaam problème mu fond la sa fond toujours day génn ci sa effectivement euh, inna zawahira unwanul bawasiri mooy biir waaw la ca nekk mooy reflété ci xar kanam mais yàlla tam moo kamaal mhm. xam nga li ma ci jàng mhm. dëgg ku ko wax muy alxuraan wallahi alazim effectivement. ku wax dëgg rek ma ngi alxuraan. c'est que c'est que wax bi jigéen ñu bari dañ ma ciy mere. kenn kenn du la mere waxtaan la rek lañ dañ may mere. Mhm. parce que li naan da nga naan yoraloo kenn dooma. waaw c'est dama laa xam te bokkal tey soo demee di takk benn xale bu jigéen mu am ñaari doom. Mhm. yow munoo yor ñaari doom yi. ci diine du ñu wax ne nga bàyyi leen sa ñu yor keneen yor leen wala da ngay indaale lu nuy wax. xale yi nga xam ne ku ko góor ki euh, mënee rek da nga ko am feneen. yow yaay responsable bi yow ko góor ki. yow yaay responsable bi yow la diine wax ne yar leen. Mm. doom yi nga jurul yi nga jurul. maanaam ñi nga jurul moom non non ki leen jur moo leen war a yar. voilà man foofu laa kii a yar dañ lay bëgg a wax ne la leen di delloo seen baay. waaw da nga leen di delloo seen baay. waaw mais bañ loolu. ku ma ah, bëgg da nga may bëgg ak da nga may bëgg man ak samay doom su fekkee man. moom bëgg ay doom indiwu ko fi. dafa nag xaw la Eva. moom waa ji a tam tam bëgg naa la lool. waaw waaye doom yi bañu ma leen mais munu ma leen a yor aw ma espace bu ma dëkkeek ak ñoom sama sama mën-mën mënul fay seenum jàng mënul fay seen oustaz Cheikh Gueye ñu na la bu baax a baax a baax ndoy baan voilà ñu ngi koy ziaral ma ko baax dégg nga man ba ma leen ba ñu leen ndax mm-hmm. maa bëgg seen yaay mais mënu ma leen a yor dëgg na man damaa njaboot ba pare nga bëgg ñëw sëy si ba pare indaaleen ma geneen njaboot te njaboot ga ma yor man munuma leen a yor dama leen carrément bëgg naa la lool waaye jëlal seen doom yi am nañ bàyyi yóbbu leen seen kër bàyyi te nga ñëw sëy si jeex mais loolu soo ko waxee jigéen ñi dañuy dañuy dañuy bañ. te am nañ raison nag maanaam boo yoree moom xam nga mooy sama laaj farloowul xale yi. waaw waa ndaw si la doom yi am nañu bàyyi. Mm. na leen seen bàyyi jël responsabilité am yar leen. Mm-hmm. voilà léegi nag jigéen ñi wax lu ñuy def. Mm-hmm. dañuy bàyyi seen bàyyi bàyyi xale yi fële. waaw yow mi leen jurul léegi ñu bëgg laa wékk lépp. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga ndoy baal mm-hmm. yàgg nañ ko wax ci àdduna bés bu nekk nga gis loo xam ne. alxuraan nangul na la ko. diine nangul na la ko. waaye ndeysaan sa sa nekkinu nit rek. ak sa gis-gisu àdduna bu rafet. yóbbu la ci gën a rafetal. ndax li ñu naan lu waroon a am te rafet bu amul woon itam. dafay ñaaw. Euh, boo boo bëggee jël nit ki moom itam nga jël ko moom kese bàyyi ay doomam. dafay xaw a doy waar kenn weddiwul lu du wax ci diine dëgg la d'accord kenn kenn du ko puus kenn du ko puus mais xaw ma ndax dina ma comprendre boo gënee boo ca mënee def daal bay ci sa waar wasu ci àq parce que dafay dafay baax moo gën a rafet ko soo ko mënee hmm. Hmm. mais soo ko mënul hmm. nin mënuma ko dafa am benn paa wax léegi kon ku ku góor kii beneen laaj beneen laaj ku góor ki bu indee ay doomu jiitleem ku jigéen ki itam ku jigéen dafa war a moom dafa war a toog rek sàmmal ko ko déedéet ku jigéen ki moo sëy si ci biir kër gi damay damay laajte maanaam ku góor ki fekkente ne bi ne dafa indaale ay doomu jiit leem waaw takk beneen soxna indi ci kër gi waaw ndax soxna si dafa war a jàpp ci xale yi waaw effectivement ndax mu ñoom ñëpp moo leen bokk njaboote benn kilifa lañ am moom mooy ki jur mooy jur fii mooy jur fee merci beaucoup mooy kilifa gi ku góor responsabilité xale yëpp ci loxoom ci loos la ne moom moo ko war a gérer moo leen war a yar moo leen war a topp. ndaw see leen fekk si biir. man dama dama wax ni. sunu borom dafa def loolu pour pour gën a mën a déedéet duñ la non non non kenn <laughs> xam nga lu tax Eva xam dama gis benn paa. xam wax naa ko ca njëlbeen nee naa lu diine teg. Mhm. kooku teg nañ ko abadan moo fi ne. waaw mais ci nekkin bu rafet ci àdduna mhm. dinañu dinañu yóbbu ci ñu mhm. gën a rafetal Seydi Aboubacar Sy am na nu mu ko waxee woon mhm. ñuy wax ne dafay wax ne diine dana la may loo xam ni sa ngor may la ko euh, waaw exactement exactement xam nga lu tax yéen génn góor ñi di daw loolu euh, da ngay dama gis benn paa boo xam ni dafa takk benn femme femme bi am benn doom sonn lool mënul ci doom ji dara benn waay gis ko sopp ndaw si takk ko jël indi ko këram paa bi nag amul doom la mu yoroon yëpp mu investir ko ci ndaw si ak xale bi xale bi muy bi muy fer la la la la ko waa ji takk parce que jëkkëram da ko fase abandonné ko bàyyi ko xale bi paa bi téye xale bi di ko toppatoo di toppatoo yaay ci ah, wax nga ba xale bi am bag ba xale bi di liggéey nekk ci benn kii bu mag yëf yor yëfi boppam récupérer yaay ji ma xale bi lu mu lu xale boobu wax lu mu def mhm. dafa récupérer yaay ji mhm. delloo ko papaam mhm. xam nga keroog nee na waa ji paa bi dafa mujj ñàkk. moom doo nga këram firnde xam nga ko loolu tax yéen góor yu bari ko nangu wax na wax na wax bi ma ne ko ku xam àdduna ku ne. Mhm. ku xam àdduna ku ne. Mhm. xam na ne doom bu sosoo ci benn sëy. Mhm. ñaanu ñaan yàlla àddunaam mooy ndeyam ak baayam. ñu ñu des. bu doon sagoom. ñaar ñi nga xam ne ñoo ko bokk jur. du ñu tàqali ko. benn am. nga nekk xale ne nanu fexe delloo leen wala nga dem ba nekk mag ne nanu fexe delloo leen sa yaay mi ngi ci buum ne ne ah. ndoy baax sa yaay mi ngi ci bopp tey ji suuf dafa maanaam war taxaw na. ki tax nga réussir. waaw ah. Mhm. ma ne tey ji paa bi nga xam ne moom moo jël ba nga fere. baan joxuñu ko rek joxuñu ko raison de. dugal la école. waaw waaw waaw jàngal la il faut mu leer. kenn joxu ko yóbbu la bitim réew nga jàngi ñibbisi. ubbi sa entreprise bopp. Mhm. ngay jënd kër mu taxaw. waaw dafa doyadi rek def lépp. dafa doy waaye mu demee ba sotti mook yaayam dañoo kompaloo garaawoo paa bi dem dellu ca ca ca boo demee sa kompaloo c'est que nëbbuñu woon paa bi dañoo wéeru woon moom waaw waa gis nga nag c'est ça le euh, problème di nga indi beneen yëf nëbbuñu ko woon gis nga gis nga awoon problème rek euh, euh, mhm. ñaaw njorti tam baaxul ku ne gérer say doom daal baaxul waaye di waaye bàkkaar la bu rëy waaw di sedd àdduna wala di sedd ëllëg itam baax na li mu ñuy empêcher rek maanaam sédd bu ëpp mhm. dafa ñuy freiner ci sunu ay gestes ak fee yu ñu war a def muy rafet yaa nga nekk ak nit ki yaa ngi naan kii de bu doomam ja màggee nangam mhm. dana ko delloo baayam mhm. dana ko delloo ndeyam dana ko dana ko yooyu itam daf lay indi frein def boo gis ci àdduna def fi sabili laa def ca gën def rek te yàlla tax lu waay def ngir doomu aadama bi doomu aadama taxawul feen déedéet tey daf koy neex mu ànd yow suba mu neex ko mu wàcc la. selon saison yi ak déroulement wu àdduna. Mhm. noonu lay topp noonu lay comporté woo. mais boo defalee ngir yàlla. Mhm. dara du la naqadi. doo gis toujours war am ci diggante. nit ki ñëw ñu koy laaj. Mhm. ni ko waa yow lii noo ko dundee mu ne dundewu ma ko lenn lu dul wax alhamdulilahi rabbil alamina parce que ba may def gisuma nit ki sunu borom laa doon gis. effectivement fa la ñu war a dem toll. dimension la nag. effectivement dimension la. ngay def di def di agir nekk ci société bi di def ay yëpp. Mhm. faaw dina am ay rëkk-rëkk. Mhm. dina am ay dóor yu ñu lay dóor. Mhm. mais boo jëlee sunu borom def ko muy sa malaan. dara du la saf. gis nga conséquences yi ngay wax rek toujours. effectivement xale yi ci mbedd mi. xale yi nekk nag su nag su dul noonu wàcc yoon bi dévié wu nekk ci leneen yooyu yëpp soo xoolee ko ci laaj papaam ak yaay anamu dañoo tas ba ñu nekkee xale. sam ba ma nekkee liir la sam papa ak sama yaay tas. bi mu demee bay dugg ba may def bakk la sa papa sama yaay tas affaire bi na xale yi ci boppam mujj affaire bi këpp ci kaw xale yi xale yi duñ am éducation bu baax duñ am ab toppatoo jëkkër nga sa jëkkër yaay bëggu la mun la yor ci biir kër ga sa jëkkër sa jabaru papa euh, bëggu la sama wujju yaay dégg ko way waykat yi way nañ ko ba sonn mu mm. li ci gën a yéeme dem maa waxtaan ak benn maire mm. maire bi dafa divorcé ak jëkkër ji di ñu am benn doom bu góor maire bi di liggéeyi dugg ci ay tontuñ di fay jàng doom yi di fay jàng doom yi fay jàng doom yi ba benn am benn weer wi année bi année bi passé maire bi mënutu la fay parce que tegge na nattam lépp def na ko ci xale bi mu woo papay xale bi ni ko waa léegi dama bëggoon nga jàppale ma ci suñu doom ji parce que ren daal xam naa ne dina difficile mais dama bokk ci benn natt su fekkee mën nga maa lebal xaalis ma fay jàng xale parce que dafay fay un année bi yëpp lay fay papa ji ni ko dinaa la lebal mais dañuy dem nga bind ko ci ay kayitu leer ñu dem ca kayoor tontine ba mu ñëw ni ko kii su ma teggee xaalis bi kii nga koy jox mun ko kii kan la mun ko kii muy sama jëkkër ji ma divorcer waa ji moo jur xale waaw maire bi ni ko yow maire bi yow tontine bi ni ko kii moo jur xale bi ngay fayal jàng mun ko waaw mun ko mu léegi su ma teggee sama natt bi na ko ko jox parce que moo ma lebal lu ma waree fayee fayu xale bi année bi yëpp yaay ji d'accord loolu yaay ji d'accord loolu Euh, ka yor tontine ba d'accord loolu paa wi d'accord loolu mu génn xaalis bi jox jox jox jox ndaw si mu dem fay jàng bi ba fay natt ba jotee <coughs> jot dat ba paa bi ci boppam moo woo ko yor natt ba ni ko euh, kii de war naa teggi mën ko waa samedi lay teggi na nga ñëw jël si xaalis bi ndaw si ñëw waa ji ñëw jël ki natt bi teggul xaalis bi jox paa bi paa bi dem léegi nag mu daal di ñëw ca kër ndaw si ni quoi ah, mais man est ce que li nga ma wax nii est ce que dëgg la réellement kii sa jëkkër la la woon mun ko kii laa tàggul moo jur sama doom bu góor bi mun ko ah, waxoon naa la soo teggee natt bi na nga ko ko jox mun ko ah, ñëw na dem ba ma jox naa ko natt bi mais man li nga ma waxoon dama defe ne woon rek ay caaxaan la imagine tey jii jigéen yor góor nga yor sa doom bu góor di ci dang-dangi di ci dang-dangi ba fay jàng jot nga bokk nat sa doom mais Ndoye Bane mais Bane Ndoye Bane c'est grave tu vas loin xam nga sax ci biir kër yi nga gis ndoy baan waaw du nu mën a wax lépp ndax temps bi daf nu xoj apulaay ak ñuy def siñ ne ñu waxtu bi jot na oh. biir kër yi nga gis nii ah. daf ci am baay yoo xam ne ñu baal nu waxtaan la rek ñuy waxtaan ak ñoom du ñàkk euh, bu nu fi jógee euh, am koo xam ne dana tàmbalee defe neneen nu nu gën a sopp mm-hmm. da ngay gis baay boo xam ni euh, doomam dafa war a jàngi à l'extérieur mm-hmm. waaye day toog di xool ndey pour que ndey fayal doom ji jàng da ngay gis baay boo xam ne am na xaalis. du mu neex ko moom benn baay bi mu fay doomu ñii jël ñii yóbbu France doomu ñële mu jël bàyyi fi. doomu ñële mu bañ leen a wekk bañ leen a faale. te moo ne te moo ne moom moo jur. moo tax ndeysaan yéen ñii bu ngeen di wax saa su ne te yàlla wax na ko. Mhm. suy wax moom boroom xel yi lay wax. lay parce que nit a ngi nekk ñu naan kilifa la. Mhm. nit a ngi nekk ñu naan personnalité la. Mhm. boobu bu ñu ko wisitoon. audité que doo ca gis lenn moo tax nit di ko li mu wax nii uh-huh. dafa fekk ñële sax tàqali ko mais dama la wax ni la am na ñu nekk ci biir sëy mas naa gis benn jigéen joo xam ne maa ngi koy nuyu bu baax ndeysaan doom ja ca dëkki tubaab ya dafa jàng-jàng bu kawee macha allah ba uh-huh. tubaab yi ci seen bopp uh-huh. ñu gis ne dana ko war a yokkal yóbbu ko ci yeneen branche mu gën a gëstu parce que xale bi daal macha allah yàlla mayoon na ko boobu xam-xam mais bu mu jotee bàyyi nangu ko fay nday jeeg ko fay mais yooyu yëpp tam xeetu sant yàlla la xam nga mooy li may wax sànq kuy def te yàlla tax na nga continuer def te yàlla tax doom yi nga gis ci kër yi dafa nu de dañuy wax rek ku màgg danga nga gërëm bala nga xalab waaw moo tax doom léegi yow nga xam ne yaay yaay na nga continuer nga góorgóorlu nga defar sa doom am na itam yeneen yaay yoo xam ne mënuñu ko amuñu ko xam nañ ne baay bi ñu tàqalikool moo mën a yor doom ngal la nanu noppal seen doom xalaat seen avenir doom balaa ñuy xalaat seen bopp ñu jël doom ja jox baay am na yaay yoo xam ne ñu ngi xëccoo ay doom mais mu ñoom wéruñu ku wérul mënoo defal dara sa bopp naka nga mën a dencee doom. Mhm. Ah. naka nga mën a surveiller doom kon cas yi dafay nekk ay. cas yu bare bare bare yoo xam ne il faut que ñu gën ci waxtaan moo tax waxtaan yi mel nii. Eh yàlla yàlla bu mu fi gëj. Eh amiin amiin amiin moo tax slogan boobu ñuy wax Sénégal. Mhm. waajur xeer la. Mhm. doom doom nen la. man ànduma ci. Ah, waaw waaw da nga doom du benn nen. waaw waajur du benn xeer. dafa am ay waajur yu doon xeer. am ay waajur yoo xam ni. Mhm. dunu dunu dunu pinton. waajur boo pinton ñi buy jar fukki dërëm. <laughs> pinton sax sax mënoo am sa baay. mais ndoy boo déggee ñu wax la loolu. xam naa li tax ñu wax ko. waajur bi la wutal yaay ju baax. waaw kay. utal nga juddu mu utal la tur bu baax. Mhm. nga nga nga judd mu mu jàngal la sa diine. Mhm. def def lépp ci sa éducation. ba nga nekk ma makum jëmm mën a yor am réew. waajur woowu xeer la. mais waajur bi nga xam ne bi nga juddoo nga ko gëj a gis. toppatoowu la lijjantiwu la xamul ndax dund nga wala dee nga waajur woowu xeer la waajur ju Papa Ndiaye du dara Papa Ndiaye yooyu la slogan yu yomb yooyu euh, lañu war a bàyyi balaa nuy fàtte itam balaa nuy fàtte xam nga léegi say dina nuy dal ci wareef li li li may dégg euh, taskatu xabaar yi ñoom képp sax yooyu di naan train bi ñëw ca heure ba intéressé wu leen ba nga ba tardé moo leen intéressé moo leen ñor waaw waaye dafa ci am ñoo xam ne dañ leen war a delloo njukkal mhm. ay wajur yoo xam ni. juruñu ko ñu nekkal de. déedéet muy ndey di baay. Mhm. di nga gis baay boo xam ne jurul doom ja mu nekkal. Mhm. waaye doom ji bëtu mbëggeel la koy xoolee bëtu cofeel la koy xoolee ndax taxawu ba mu ko taxawu tax. Mhm. gis ndey boo xam ne déedéet ba ngay judd fekkewul waaye bu mu dikkee dafa gën a rafetal. gis koo xam ne ba sa jur yi dëddoo yàgg na yàgg na mu toppatoo la kon ñooñu itam ñu ngi toog di seetaan wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ndax da ngeen a bokk ci ñu defar société mbir moo gis nga koy liim wax ña nga xam ne ñoo ñoo sant Ndiaye. Mhm. am na ñu ci sant Diop ak Diagne toog ca LB. kon ñi sant Diop ak Diagne. ñu dañ leen di gërëm bu baax a baax a baax. macha allah kon euh, Ndoye Bane. waxtu bi waxtu bi dab nañu. Uh-huh. ay ay ca bisimila. maa ngi doon ma ma ma tënk la la li Ndoye doon wax léegi ci wàllu waajur ak doom. Mm-hmm. xam nga waajur ak nu mu mën a demee waajur la. Mm-hmm. xale ba waajuram day naan sàngara. anecdote la rek bu gàtt. waaw mu ne ko bu fi naanati papa bu fi naanati sàngara yonent bi da koy tere mu ne ko doom te ngaa topp sa yonent te bàyyi maag sama sàngara maa la jurle mhm. mu ne ko bàyyi boo fi naanati sàngara ci gàttal mu duma la xale bi dem jàkka ji tisbaar ñëw fekk yaay ji papa ci di naan sàngara mu ne ko papa li mu ne ko doom ba sama sàngara mu dóor ko kurpeñ mu xëm bàyyi ji xëm bi mu ximalikoo ne waa ku ma def lii ñu ne ko sa doom sàngam ana moom ma nga jàkka ja woo leen ma ko bàyyi ji ñëw doom ji ñëw bi mu ñëwee ñu ne ko doom li nga ma def lii pour lan la mu ne ko papa waxoon naa la yonent bi day tere sàngara mu ne ko doom su yonent bi tere sàngara maa la jur bàyyi maay sa baay waaye di nga xam ne tey maay sa baay fa war fasam rëppatal uti màkk wër kaaba gi ñaan ci barke ak waajur ak doom ne ko dama bëgg nga paralyser ma xale bi côté droite ci saase fi xale bi fi papa ji ñaanee lool ci saase xale bi paralysé mu dellu si ne ko papa xoolal li ma dal sa ginnaaw mu ne ko maa ko woon doom ca kaaba hmm. doom Hmm? yemal ci sa diine ta nga bàyyi maag sama sànq. ak sama ñàkk njëriñ fu mu mënti ne. maay sa waajur. cest li ma bëgg a expliquer foofu rek mooy. Hmm. waajur waajur la waaye waajur bi jërul responsabilité ci doomam am na lu ko diina teg. doom ji am doon digganteem ak diine. xoolal waaw parce que diine sax nee na la yow doom gi fala tuti'huma hmm. buñ la santee loo xam ne ni jaaduwul wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm doom bu la bàyyi sante loo xam ne jaaduwul wala deful ci yow la war a def falaa mhm. tuti'huma bu ko topp mhm. bu ko topp ci loolu de waaye wa saahibuhuma fi dunya ma'rufan mm. àndal ak moom ci àdduna àndin wu rafet dëgg la rafet diine loolu bëgg rafetal oustaz rafetal to ba waajur woowu ñaan moom ngay tëjee waaw oustaz mm. waajur woowu ñaan doom ji paralysé waaw daf ko wutal yaay yar ko ba mu màgg gis baayam di naan sàngara waaw mais waajur wi nga xam ne mhm. ba nga juddoo la la gëj a gis ba nga màgg jéemul ci yow dara dara dara daw ay responsabilité fase sa yaay ba fase doom ya waajur woow su demoon su demoon ci suñ ko ibbuloon biir màkka mu kaaba ga mu dugg fa toog ñaanal lu bon du la dal dara du la dal. waaw parce que deful li mu war a def voilà deful li mu war a def. dëgg la waajur bi nga xam ne dafa jël ay responsabilités dëgg la wutal yaay ju baax wutal la tur bu baax yar la teg la ci diine kooku lu mu la ñaanal mu dal mais mais waajur bi nga xam ne dafa daw ay responsabilités. ndoy loolu nag moo bari ci dëkk bi dëgg la loolu moom baaxul. xam nga ndoy baan man sa waxtaan bi dama lay jëkk wax ne la puusuma ko nangu naa ko te téye naa ko. Mhm. mais dafa fekk ne ci mhm. àdduna mhm. gis-gis la ba léegi ndax gis-gis yi dañuy wuute effectivement gis nga euh, imam ka lay def lu safaanu fayee ko lu baax. Mhm. tolluwaay la laaj nag. dëgg la tolluwaay la. ka lay def lu safaanu. Mhm. fayee ko lu baax. yeneen waay jur bi nga xam ni. moom xam na ne deful dara ci sa àdduna. waaw. mësu solal mbubb mhm. mësu lay solal dàll mësu lay toppatoo say vaccin sax xëy na ba ngay xaleel joxu ko sa yaay pour que nga vacciner gisu la sax la soo mënee defal te yàlla tax def ko jëlal ci sa doole bi mhm. jàngal ko xam nga nit di nga ànd ak mag ba pare nga di ko adduna àdduna saa boo yeewoo nga koy fàttali ni sunu borom bëgg nit nit mel ko nit mhm. ni ñu bëgg mu mel mhm. mooy droiture mooy nga baax koo mën ci nekkal te mu am yu muy def yu safaanu ci yow mais defal ko lu baax eh. parce que lu baax loolu yow ci ngay faju boo gisee ma di wax ndoy baan dafa fekk waxtaan ku ne da cay for dara. dëgg la ku ne da cay for dara. Mhm. ma doon ñëw encore ci xale yi nga xam ne seen ay wayjur doon divorcé ba noppi ñoom itam ñu bëgg yàq seen àdduna bopp. ok. ñoom divorcé nañ mhm. seen choix la ñu divorcé. ñoo doon ànd àndatuñu. d'accord nekku ci. metti na ci man d'accord. jaxase ngeen sama àdduna d'accord mais du ma nangu itam sama desitu àdduna macha allah. ma wàccee leen ko. di dem naan. damay màndi damay màndi di dem naan damay tox yàmba di dem naan damay jaay sama bopp en tant que femme parce que sama ay wajjur dañu dañu dañu divorcé mais yow fexeel nga baaxal sa bopp pour que ëllëg nga mun a créer sa foyer effectivement fexeel nga baaxal sa bopp pour que ëllëg nga bokk ci ñi nga xam ne société bi daf leen a soxla uh-huh. noonu la ñuy ñaan yàlla xale yi def ko yàlla nañ ko def lu ci ñàkk am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan au lieu ngeen di def focus ci papa ak maman faites focus sur vous-même qu'est-ce que vous devenez su fekkee ne yéen a ngi topp ñële mënta dem toppatoo leen seen bopp gérer leen seen bopp defal leen seen bopp benn avenir bu meilleur maa ngi bàyyi oustaz tàggatoo ndax waxtu bi jot na. ah alhamdulilah waaw ñu mm. tàggatoo rek ah, fi may tëjee sama kàddu. maam Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu dañ ko laaj. Mm. sa kër lan moo tax mu baax. Mm-hmm. mu dëgër. Mm-hmm. te benn mbir wi amu fi mu ne liy xew ci kër yëpp a xew sama kër. ñaari mbir moo tax kër gi baax. waaw di noppi ci lu ma mën a faj. Mm-hmm. ak joxe lu ma mën a gàntu. fi nga waroon wax waaw déedéet. nga joxe ko te war a faj ci mu du yàq dara. kon yàlla nañu yàlla dimbali. amiin amiin tabaarakallaahu nuy delluwaat di la nuyu soxna Eva bu baax. di nuyuwaat Alxaaji Ndoy Baan di nuyu mboolem téléspectateur yi ci réew mi yëpp. TFM mm-hmm. ñi nekk ci biti réew ak ci biir réew. di nuyu xalif général des Tidianes. Ah, Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour ak njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu yëpp. di ñaan yàlla may noppi dégg ak topp wa aaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil aalamiin. asalaamaaleykum wa ko dégg incha allah doy baan yow itam jaajëf Eva ñuy sant di gërëm oustaz bu baax ak ñi doon seetaan de toute façon daal li may wax mooy Sénégal nañ bàyyi seetaan seetaan bi dafa bari ngay gis ko fasa jabaram fase ay doomam abandonné ay doomam pendant des années imam di seetaan oustaz di seetaan baay di seetaan mm-hmm. yaay di seetaan mm-hmm. société bi yëpp di seetaan xale boo yooyu ñu màgg ñu abandonné mm. dem ba màgg ñu naan leen seen papa dem ci seen fa ñuy liggéey di tafu ci miir yi ah, kii moom société bi sama doom la mm-hmm. yaa ngi doo a xam ne doo sa doom la dëgg la sa doom loo ko ñaanal ci lu bon du ko dal dëgg la nañ bàyyi di fase ba fase say di doom mm-hmm. yaay ji mën nga koo fase mu wut beneen jëkkër mais booy yi mun ñu ut beneen papa jëlal say responsabilité toppatoo xale yi xale yi waru ñoo toj ay fay ay nen yu ñu tojul jërëjëf baal góor da ngay jël say responsabilité wane ni góor nga waaye mm-hmm. fii gars yi nañu dañoo defe c'est gars yi c'est dafa bari ay xam nga géniteur Mm-hmm. ah géniteur. dinaa dégg xale yi naan bon géniteur. géniteur. Mm. mooy defar doom. très bien yomb na. Ah. mais nekk góor moo jafe. très bien nekk waajur. Mm-hmm. moo jafe. dëgg nañ jéem a nekk ay waajur te jël suñu <coughs> responsabilité. Mm-hmm. incha allah ñoom ziar ñoom Maymouna Bo. Mm. ñu koy ziar ba ak madame Derviche. très bien ak euh, madame ay Aïssa Kassé sama ñett ñooñu daal. Evatra mi ngi remercier bu baax a baax waa salon de couture ba Manan Style di remercier Mimi Traoré Manti trawaree ak Sidi ak bépp tailleur bu fa nekk li may wax rek toujours seen mbubu mine de rien yi wax dëgg yàlla mbubu yi habillé la nu kon sant naa leen gërëm leen pour mbubb mi ak fulaar bi ñoom ñu ngi nekk ci 33 821 64 72 821 64 72 waaye beneen gërëm li itam danaa ko remercier waa salon Béatrice coiffure torsade yi rafet na noppale na macha allah tàngaay bii kenn du def beneen rajo bu dul dem rek léttu ay torsade yi rafet ndoy baa na tax mënumaa dindi fulaat bi waaye daal kontaan naa ci maa ngi remercier Mami di remercier Anne-Marie di remercier Tina Tullaay caat ak ki nga xam ne itam mooy Béatrice di leen wax rek jëf jigéen ñi nanu dem foofu itam toppatoo seen kawar ndax toppatoo kawar itam baax na ci jigéen dafa bokk ci taaru jigéen bu loolu weesoo dañu leen di balu àq bu baax a baax ndax waxtaan woo gis rek am na ku cay jële mbir waaye am na itam ku cay jële beneen mbir boo xam ne mhm. du noonu lañ ko bëggee woon bu nu dalee ngeen jéggal nu ndax defar rek tax a jóg yal na yàlla boole nu jéggal nag sunu ay bàkkaar yal na yàlla lu ñëw sol jikko ju rafet taxawaay bu rafet gis-gis bu rafet ndax ci lu rafet la lu rafet di jóge lu ñaaw nag moom yal nañ ci yàlla musal lu dul baax baax a ko gën nañu ubbi xel yi ubbi kër yi macha allah nit ñi dem ak ñëw bàjjen yitam bu leen fàtte seen rôle macha allah li ñu naan bàjjenu gox euh, dafa am solo waaye nag ñi nga xam ne itam da ngay juddu rek gis leen ñuy sa bàjjen ñooñu seen taxawaay dañ koy xaar bu baax a baax te il jamais trop tard pour bien fair ku doon def lu safaanu na la leer ne bu la yàlla mayee nga yeewuwaat daf la may pour nga jubbante sa bopp yàlla nu yàlla may fan yu gudd yu ànd ak dal Apoulaye merci à ton équipe jërë ngeen jëf mbokk yi ba suba incha allah sopp nañu leen.